nga tey ay protéger Adji Sarr wala protéger cabax est-ce que xam nga ku bëgg dimbale Adji Sarr nan ngay def xam nga ko yow mi su ma la bëggoon dimbale sa yaay di dund dama lay yóbbu ba sa wetu yaay mais nit munoo ko dimbale ndeeg toogul si wetu way juram Adji Sarr buñ ko xam nga lu tax kër gu mu dëgg gis nga Adji Sarr fu mu toll nii boo ko doon natable xam nga lan nga koy natable xale boo xam ne dafa kuusu ba pare puub kuusu ñu solal ko yére yu rafet wala bu la jubee da nga koy bëgg a fab mais boo ko fabee pou yi dalay lay xeeñ nga sànni ko parce que xam nga lu tax tolérance bi mbokkam mën a am ci moom yow doo ko ci am du dëgg tey dañ ko waroon a teg ci wetu papam teg ko ci wetu mbokkam ba pare jàppale ko jox ko benn jox ko benn fond mu liggéey ba pare nga topp projet bi bu dee li ngay topp di nga ko daax di ko jàpp mais bu koo jël aati moo ko ba pare soriloo ko ay mbokkam kooku tamit ku du dal xel daal ba pare Gabriel Kane mi mi protéger Adji Sarr mais kooku lan la ba pare lan la. parce que ñu ngi ñu ngi wax ni Gabriel kan dafay dafay dund ci kawam maanaam dafa dafa jël Adji Sarr ah, teg ko di récupérer ay xaalis yoo xamante ne dañ ko koy jox pour mu dimbali Adji Sarr mais def ko ci Adji Sarr si boppam la koy def. non mais nit ku la jël teg la benn ruq di la jox lekk di la jox naan nga nangu ko lu mu lekk ci yow jaaduna Gabriel su doon man la damay jëlaale ci yéen Adji Sarr yi di jaay. déggoo ma de. nga sadik. déedéet mais yow yow yow yow ngay jigéen. yow ngay jigéen gis ni kii sa moroomu jigéen la mu teg la ci benn boor loo loo def moo koy dindi di la ko jox bu lekkee ci yow jaaduwul. mais est-ce que Adji Sarr instant bi am na choix tamit. Adji amatul choix bopp cokkeer la yor parce que ay ati at ñu dugal la ci benn ruq ngay cant ak di gërëm. tey bu génnoon liggéey moroomam yi ñu ngi liggéey di di faj seen Adji Sarr instant bi mënul liggéey Adji xam nga ni mënul génn mënul dem fenn barke rasulullahi Adji Sarr bu génnoon sénégalais duñ ko def dara barki laa ilaha illallah Adji bu génnoon sénégalais yi duñ ko def dara loolu nga yaakaar non xoolal liñ ko denc bëggoo bëgg a ba parce que Adji Sarr na mooy too xoole yaa ngi ni jël ma man mii ñuy wax bind ko bis dina mas a jot aj di nga jël aji saar te moo lay woo téléphone nga fekk si la aji saar bu nii muy def aji saar dina mujjee mel ni ceebu mbootaay lambar lambar parce que aji saar ñetti façon aji saar nga gis aji saar buy làqatu nga njëkk a gis gis aji saar boo xam ne dañ koy wax muy wax bu njëgi nga gis aji saar bu ñeme sénégalais yi taxaw di wax lu dëgg loolu lépp kon niñ ko yaree woon nii nii nit def ci moom mais Adji Sarr bi ñu njëkk gis Adji Sarr bu baax la parce que Adji Sarr bu doon làqatu la doo mën a xam sax kanam gi buy wax di sëgg léegi Adji Sarr bu ne jàkk di wax ak yow ngay gis yaa ngi dégg léegi Adji Sarr su fekkante ne dafa toogee nii buñ ko joxee kii tey suba ñu jox ko ke yaa ngi dégg léegi mu dem ba euh, tey régime bi fi nekk nekkatu fi Adji Sarr nan lay demee segam yow régime bi ñi ngi fi te yow nee nga dangaa bëgg ñu jàppale la te mënuluñ la mënuñu ci yow dara léegi yow bu régime boobu jeexee ndax yow di nga mën ci loolu dara gis nga nit yow yaa yeewu yow yaa yeewu nekk nit yaa ngi dégg way dëtt mbaa nga way deret aji saar bu génnoon ci mbedd mi barki rasulullah kenn du ko def dara aji saar fuñ mu natt boppam nii bu génnoon di dox sax nit ñi xoolatuñ ko nit ñi xoolatuñ ko aji saar du xutb du wëliyu du dara lu ko nit ñi di songe waxal lan lañ koy songee nit ñi xam nga lan mooy problème mu ab Adji Sarr li nekk ci ginnaaw Adji Sarr mais Adji Sarr du kaa Adji Sarr du kaa. Adji Sarr kaa la de Adji Sarr xam nga ne ñemewul génn ci mbedd bi di dox comme yow tey ni nga génnee di dox si mbedd bi sa xel dal. nooy nekkee ci dëgg di laaxatu. Ah. loolooy question bi nag. waa léegi xool man loolu moo ma jaaxal nan ngay nekkee ci dëgg di laaxatu. ñaar ñi bi ñu xëccoo dix mille ku nekk ne maa ko moom ñu demsi si commissaire bi commissaire bi jox leen ko na xotti leen kee di xotti ki moom bàyyi ñu mbéj kële. Adji Sarr xoola bu dee li muy wax dëgg la dafa waroon a ñimee génn affronter sénégalais yi kii nangoo génn affronter sénégalais yi kon kay kooku mi ngi ci yoon. ci kaw loolu ñuy wax ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi waaj woo ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ngir procès Adji saar bi ndax gis nañ ne bi loolu amee ba tey audition yi mi ngi doon wéy ñi nga xam ne laaloon nañ ci ñëpp woo nañ leen euh, laaj leen mais moom ba léegi woowaguñ ko woon mais dégg nañu ñuy rumbandaat lu mel noon ni war nañ ko woo d'ici le 13 ou bien le 15 nan nga gisee loolu tey euh, jamono ji mën nañ ne euh, bu ñu tuddee dossier boobu moom sénégalais yi seen fit yëpp ay dem ndax li fi jotoon a xew. waa xam nga man doon man mun naa waxtaan ak Macky Sall dinaa ko wax sama xalaat xam nga sama xalaat lan la parce que Macky Sall dama gis mu njëkk a Karim Wade dem ba tollook moom dayo ñu nekk fi ñoo Karim Wade di mbii ji mbaaja mbii mbaaja ba Karim Wade dem mu defa ne dina am taw fee xam après xalifa Sall ñëw mu nekk ceeg xalifa Sall ba Khalifa Sall mu gëm ni kii dootul bokk ci élection yàlla indil ko waa ji ñuy wax Ousmane Sonko tegal ko ko boobu ba léegi munu ci dara du dëgg su doon maay moom nag man maay Macky Sall affaire projet boobu dama koy teg si suuf. lan moo tax loolu. non lu dul jàmm jàmm ko gën gis nga bopp bu rëy buy metti bopp bu tuuti bu sedd ko gën du dëgg ba pare problème mu Adji Sarr. dossier bi fi mu toll ji yaakaar nga ni teg ko si suuf dina yomb problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko fi mu toll ci réew man de man pour man li jàpp mooy dossier Adji Sarr dossier bu ñuy galgal Sonko la pour mu bañ a bokk ci élection yi rek mais pour man ay dossier ngi fi dossier yu ko ëpp importance te lijjanti ko da yaakaar ni euh, bañ mu bokk ci élection yi moo tax ñu yëngalaat dossier bi jamono ji waaw mais man bu ma sañoon Macky Sall mu bàyyi ba pare kaay mu wax la benn affaire su fekkante ne Macky Sall daa bàyyi gaayale ñu ñëw bokk ci élection yi ñi mu bëgg amnistie Karim ak euh, nu mu tuddati Khalifa Sall. waa mais boobu tamit ban benn secret ngi si buñ toogee daan ni deux mille vingt deux képp ku defoon benn affaire baal nañ ñëpp mm-hmm. mais ñi fare woon ci nguur gi te ñu leen di jiiñ luubal mm-hmm. ñooñu dañ siy seeyaale. ci la ñuy bokk loi bi moom buñ ko xasee ba voté ñëpp ñëpp ñëpp ñooy nekk si biir. waaw ñu yor suñu xaalis di lambar lambari mm-hmm. loolu tamit day doy waar. te tamit nii nii su fekkee dafa téye ñee benn ëpp benn benn benn ëpp benn nit lay lay jàkkaarloon kon jël bi day gën a yomb ma naan Macky Sall bu ma sañoon mu delloo si xelam niñ ko joxe woon réew mi mu delloowaat ko noonu xanaam loo yàlla bu lay jox nguur dala kay jox mais bu koy bu koy bu koy nangu da koy bif parce que boo seetee yi yëpp ay bif la parce que député yi ba ba président di président ba tey président bu fi ñëw mooy mës mooy mës di ëpp député nga dem ba yow ñi ngay opposition bi nga tolloog ñoom kon danga ngaa war a reculer mais waroo avancer ba pare ñiy wax ak Macky Sall duñ ko nettali lu dëgg dëgg li xew ci réew mi mais buñ ko ko doon nettali defe naa du demee nii mais affaire Ousmane Sonko man de ñemew ma affaire histoire Sonko bi moom ñemew ma ko. ñeme woo ko comme sénégalais yëpp ñëpp ko ragal. waaw mhm. ba pare gars yi dafa am lu ci laxasu ba pare am lu ñu gëm ndiig boo ko laalee tamit ni niñ defoon la ñuy defaat ni ñu defoon man maa la wax ni noonu la ñuy defaat. da yaakaar ne bu ñu yëngalee dossier bi dëkk bi mën na demee waat na mu demee woon. parce que xam nga gars yi dañoo seetaan ñu wañ loxo kari mu jàll ñu wañ loxo Khalifa mu jàll moo tax loxo bii neexut a wañ wañ wañ yee lañu indi ci wañ gii. su doon man la damay bàyyi mu sedd parce que ni nga amee droit di jëf noonu nga amee droit di bale yi mu yëkkati lox moom dossier yu bëri boo nee boo waxee dossier mu ne la moo si teg conc du noonu mais yi mu teg conc bii munu bii munu cee ruy conc mbaa mu toog ci si dina yomb ak li ci laxasu yëpp parce que boo xoolee féministe yaa ngi ci biir Adji Sarr si boppam tam est-ce que justice tamit pour boppam moom projet la bu ngand parce que ñu bëri biñ koy encadré lex yu noox la ñu yoroon léegi ay lex yu duuf la ñu yor Adji saar man mii bu ma ko gisoon sax yor projet bi lijjanti sama affaire te moom gars yi dañuy lijjanti seen affaire affaire am du baax ba mukk Adji Sarr chaque jour mi ngi cant ak gërëm di wama jëndal mees di wama jëndal yére Adji saar moom noonu la bëgg a dundee waxa man de dama ko yërëm parce que toog benn place di jaabante duus waañ xam nga di circuler benn côté dafa mitti mu wax ak waxul. amoo génn fenn. mu wax ak waxul. prison la nekk waxal prison mun ta weesu loolu gars yi munoon gis nga gars yi ba aju saar ne càpp buñ ko lijjanti woon teg ko ci fiñ ko war a teg affaire bi jeex na bu yàgg. aji saar dafa am ñu ko jëndaloo fasu yaa biir te guble wuñ ko ko wut la nga ndam fas moo xam ne boo li muy lekk ci ñax daa bari te booy dem àll ba ñu ne la demal te ñëw mooy lii sama gis-gis su ma sañoon dañuy bàyyi wax boobu si suuf mu tege wax dëgg yàlla ba pare Sénégal moom kenn mënu ko taal buñ nee la réew mi amul ñaan réew mi am na ñaan parce que politiciens yi wax nañ lu war a taal réew mi bu yàgg te réew mi tàkkut chaque jour nga gis si politiciens saa bu meree wax musiba suñ ko si boolewaatee mu wax leneen te ba tey réew mi tàkkut munuñoo taal réew mi réew mi moom kenn ci ñoom munu koo taal ku ko jéem a taal li ngay taal si sa kaw lay agsi réew mi boo fi bëggee nekk te mucc da ngay bëggal réew mi jàmm soo bëggalee réew mi jàmm di nga am jàmm mais bu dee dafa am loolal ci ginnaaw yàlla moo dul d'accord